إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته am na benn laaj boo xam ne mbokk mi ko yónnee mi ngi ci waa xam sa diine amin dafa dafa wax laaj bi sax ci kàddoom ñu dégg ko ci biir benn lien bu nekk ci biir site bi muy laaj xadis bi nga xam ne moo siiw bi ñu koy wax xadisu darir moom ci boppam mu jàngal xadis bi mooy xadisu Ousmane Ibn Xanif radiallahu anhu anna rajulan darira albasar ata annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amin mu ne dafa am waa ju sëlma xa ñëw fa yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaal udu allaha an yuaafiyani ñaanal yàlla mu wëral ma fa qaal in chita daawtu lak wa in chita axartu dalika fa huwa afdalu li axiratik yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko bu la neexee day mën naa laa ñaanal waaye bu la yeexee bu la neexee it mën na maa yeexe ñaan googu bañ naa ñaanal léegi nga denc ko mu doon ñaanuk àllaaxira te loolu moo gën ci yow maanaam lu jëm ci du doon lu jëm ci sa wér gi yaram waaye lu jëm ci sa njub ak sa kàddi àjjana ca lay aju bi mu waxee loolu qaala fad'u nee na mu ne ko man ñaanal ma rek ma wér qaala fa amarahu an yatawaddaa fa yuxsina wudu'ah wa yad'u bi hada du'a nee na mu digal ko ne ko jàppal njàpp mu rafet ci yenn siriwaaye yi mu ne ko nga julli ñaari rakka kon jàpp na julli ni ñaari rakka nee na wa yad'u bi hada du'a mu digal ko ne ko ñaanal ñaan gii ma lay wax mooy allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyi rahma يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في وشفعني فيه قال ففعل الرجل فدعا ñaan gi mooy yow saa borom maa ngi lay ñaan maa ngi jublu ci yow itam ci sama ñaan gi ànd ak sa yonent bi Muhammad mi nga xam ne mooy yonent bi yërmaane dana ñëw ci bi nabi yi sa jool yi yaa Muhammad yow Muhammad maa ngi jublu ànd ak yow ci sama borom maanaam maa ngi ànd ak yow jublu sama borom di ñaan ci sama aajo ji ndax ñu fajal ma ko yow yow yàlla allahumma shafaahu fii yàlla yàlla na nga nangu ñaanam yàlla na nga nangu ñaanam gi may ñaanal wa shafaani fiihi ñaan gi may ñaan te ànd koog moom it yàlla na nga ko nangu qaala fa faala rajulu fa baraa nee na waaja def ko dal di mis na fefeet di xoole xadis boobu Tirmidi génn na ko ak Ibnu Maaja ak imam Ahmad ak Nasaayi Tabaraani yeneen ñu bari ak xaakim xadis la boo xam ne bu wér la borom xam-xam yi wéral nañ ko bokk na si ñu ko wéral al Bayhaqi ak xaakim ak Wahabi ak itam Cheikh Nasir Diin al Albani rahmatullahi ala al jamii xadis bi dafa am ñoo xam ne xëy na li tax mbokk mi laaj ko sax mooy loolu waxaale na ko ci biir question am mooy dañoo jàpp ne dafay dëgëral nit ki di tawassul maanaam kerkeraanu wala muy ñaan ci jëmmi nit ku baax wala ci dara jaam ñaan ci jëmm mooy yàlla maa ngi lay ñaan ci jëmmi diw ñaan ci barke mooy yàlla maa ngi lay ñaan ci dara jay diw wala ci barke diw moo xam waxin wu mu ko mën a waxe tontu woon nañ ci ay laaj yu bare bare yu jiitu ne loolu dajalul ndax saxul jóge ci yonent bi wala mu jóge ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain kon ñu yaakaar ñu yaakaar ne xadis bi day dëgëral lu mel noonu seen tontu mooy li muy bëgg a wax moo di xadis bi jëmul sax ci li tax ñuy wax ñoom ndax ñu yaakaar ne tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam mi ngi dund moo xam dam fa danga faa jóge waaye ci jëmmam la ñuy tawassul yaakaar ne tawassul boobu silmaxa si def ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tawassul la maanaam terteraanu la ci jëmmam loolu njuumte la li wér moo di ne xadis bi sore na ak loolu lool xadis bi mu ngi dellu ci xaaj bi ma la waxoon ne bu dagan la ci tawassul muy tawassul ci ñaanu nit ku baax li ñuy tegtal loola ba ca njëkk moo di ne silmaxa fii dafa jóg ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu ñaanal ko ana lum xame ne ñaanal ko moo ko tax a jóg moo fekkoon ne saxaabi yi boobu tawassul ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tax a jóg kon du déplacé di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kay day toog ci këram daa di ñaan yàlla ne ko allahuma inni asaluka bi jaari nabiyika wala bi xaqihi wala bi mansilatihi yàlla maa ngi lay ñaan ci daraje tëb yonent wala ci palaasam ci yow wala ci darajaam wala ci barkeem wala tur wu mu ko mën a tuddee kon noona lay def te toog këram waaye nag saxaabi yi boobu radiallahu anhu jëfut loolu lu tax nga xamoon na ne ni ñuy tawassule ci nit ku baax ci ak ñaanam rek la mën a doon ñaareelu li ñuy wan ne ñaan loo ko tax a jóg mooy li mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko udu allah an yuaafiyani ñaanal ma yàlla mu saafara ma maanaam mu wéral ma kon loolu leer na nañ ne kooku ñaan nga moo ko tax a jóg moo def moo tax mu déplacé këram ñëw ba ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee itam ñaanal ma yàlla la ko ñaareel ba moo di ne yonent bi sallallahu alayhi li ñu wane ne place bi place ñaan la li ñu wane ne loolu mu def dafay dugg ci xeet wi dagan te muy ñaan loo nit ku baax moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo dig ne ko dana ko ñaanal moo tax mu ne ko in chita daawtu lak bu la soobee day ma ñaanal la wa in chita axartu dalik bu la soobee it ma yeexe kenn ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu digee da koy def bi mu ko digee ko bala soobee ma ñaanal la mu ne ko ñaanal kon kenn ku ne xam na ne yonente bi alayhi salatu wasalaam la mu def mooy ñaan waaye defut leneen waaye nag yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu ko digal muy ñaan daf ko jàngal ni ñuy tawassule tawassul bu rafet maanaam ni ñuy ñaane suñu borom tabaraka wa taala mu orienté ko ci xeetu ñaareel yu dagan ci tawassul muy tawassul ci jëf ju baax mu daan koy digal mu jàpp bi mu jàppee mu digal ko mu julli ñaari rakka bi mu ko defee door a ñaan julli ñaari rakka ko bu ñëw na ci riwaaya bi Ibn Maaja ak Ahmad ak Xasan ak Bayhaqi da ko digal tam mu julli ñaari rakka bi mu noppee it ñaanal boppam loolu lépp nag ay jëf yu baax la yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ko digal mu jaare ci ngir ñaan kon bu nit bu jóg ngir ñaan dagan na ci moom mu daal di lu baax la sax ci moom bokk na ci tey jii nii te bokk na ci yi tax ñu nangul ko ak ñaanam moo di mu jëf-jëf ju baax jokkale ko ak ñaan ak day jàng alxuraan ba noppi tàllal ay loxoom ñaan wala mu jàpp bu noppee julli ñaari rakka tàllal ay loxo ñaan loolu dana tax borom bi tabaraka wa taala nangul ko ak ñaanam kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam orientation bu mel noonu la def loo silmaxa soosu mu jàpp julli bu noppee nag mu sàkk ñaan loolu xam ne xista boobu lépp lu ci aju rek ci ñaan la aju ñaan gi nga xam ne nag moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal rot na ci allahuma fashafiahu fiya allahuma fashafiahu fiya loolu mooy yàlla yàlla nga nangu ak ñaanam bii mu may ñaanal maanaam yàlla nañ ko nangu ci ñaan gi may ñaanal moo tax Cheikh Nasruddin Albani rahmatullahi taala alayhi day wax ne mun sa nekk mukk kàddu googu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax jëm ci tawassul ci jëmmi nit ki wala ci darajaam wala ci xaqam ndax lii maanaam yi mooy allahumma aqbal shafaatahu fiya yàlla yal na nga nangu ñaan gii mu ma ñaanal ci sama gis bi mën a dellu si kenn ku nekk xam nga ne ashafaa ci loxo mooy doa muy ñaan nam ko waxe ci mujaad wa shafiani fiihi cheikh nasir rahmatullahi taala alayhi téeram bi ñu wax ak tawassul nee na ay taqbal shafaati ay duaai fi an taqbala shafaatahu maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na ko moom ci boppam nee na yàlla yàlla na nga nangu ñaan gim na ñaanal ñaan gii mu mujj a ñaan nag moom it yàlla na ko yàlla nangu mooy ñaan gi ma ñaan yàlla nangul ma ñaan nga nangul ma ñaanam gi yàlla na nga ko nangu wax nañ la moo tax mu ne aqbal shafaati ay duaai fi an taqbala shafaatahu sallallahu alayhi wa sallam ay duaahu an tarudda alayya basari nee na loolu mooy li nga xam ne kenn mënu ko dégg ci xadis bi lu dut loolu am naa nag li mu wax ne atawajjahu ilayka bi nabiyika maa ngi di jublu yow sunu borom tabaraka wa taala ànd ak sab yonent di nabiyika baa boobu moom la ñu tudde baaul musaaxaba maanaam ñoo xam ne de li muy firi mooy ñu ànd boo nee jiitu bil kitaab yi mooy in dikk naa àndaale ak téere bi kon moo yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoo bokk benn place bu ñu toog ndax boo yéene këram fekk si ko këram ñaareel bi ñoo bokk li muy def ndax daa bëgg mu ñaanal ko mu ne ko yow it kay bokk si ñaan bi dana jàpp te ñoo julli boo dikkee mu ñaan kon buñ dikkee di ñaan mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoo bokk jëf di ñuy jëf di ñuy def kon ku yaakaar ne am lënd la li mu wax ne dina bi ka ngay wala mu ànd ak sa yonent muy ñaan muy ñaan su ko defee nga màndal la maanaam nga wàcce ndox moo tax ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àdduna mu ñëw ci Abbas daan ne ko yow kat moom lañ daan def léegi nag ginnaaw yonent ba nekkatu ko kon yow Abbas ñoo ngi kerkeraanu ci yow maanaam ci sa ñaan kon su fekkoon ne jëmm ji la ci niñ ko waxoon ci sant la weesu su doon tawassul ci jëmm la kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak génnam àdduna du tax ñu bàyyee tawassul ci ñoom di ko ko di dem ci Abbas ndax kenn ku ne xam na ne moo gën ñëpp xayyan wa mayitan sallallahu alayhi wa sallam waaye xam nañ ne tawassul ci mooy ci ak ñaanam ginnaaw kenn ak faatu na mënu ci la ñaan kon ka fay nekk di ñaan di dund kooku la ñu dem gën ci moom kon ñaari xadis yooyu ñëpp seen maanaa menn mi la kenn du jaadu ma di ko tàqale parce que seddlil ne xadis bi ci ñaan la jëm ak ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale saxaab yi boobu wane ne ñaanu yonente bi la yàlla nangu moo di borom xam-xam yi dañoo génn xadis boobu ci téere yi nga xam ne day wane maajisaatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kéemaan yi yàlla di jaarale ci ay loxoom fi lañ ko génne kon mu ñaan rek mu daal di nangu fi saa si fi mu toog kooku ci alaamaatu nubuwa ci la bokk moo tax ku mel ne day xaq yi ci téere bi ñuy wax dalaa'ilu nubuwa maanaam mandag yi yoone ne yonent bi mooy yonent bi mu génne ko xadis boobee kon ñu xam ne lay sekkare ci saafara silmaxa soosu mooy ñaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di caagi ni mooy ñaaru waa ji ci boppam boo xam ne daa tawasul ci jëm yonente bi wala ci dara jaam kon ñu xam ne loolu la su fekkoon ne sekkare bi dëgg dëgg mooy ñaanu silmaxa si dafa ñaan ci daraje yonente bi rek yàlla daal ko nangul ak ñaanam kon képp koo xam ne dafa ñaan rek ci daraje yonente bi muy silmaxa wala muy leneen daal bu ko ñaanee rek kon léegi kii am daf koy daal di am ci change waaye kenn ku nekk xam na ne lu bari ci nit ñi tey ñu ngi ñaan di xett li tut def yoo xam ne wóor na leen ne wala wóor na borom xam-xam yi ne dëggalu ñu koy def ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nit ñu baax ñi wax ci daraje diw ci barke diw ci place diw ci ak diw donc lu nekk ña nga cee ñaan yor seeni gàtt yu leen dal moo xam ci bët la moo xam ci tànk la ñoo ngi koy ñaan te tamit ñu continué doon ay silmaxa wala ñu continué doon ay nit ñoo xam ne ñu laajte leen su doon seenu ñaan rek la ak jaare ko ci jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala darajaam loolu mooy wuññi balaa daal di koy jënd ci saasi kon balaa yëpp danañ yëkkati waaye nag teelam amuñ bët ak lii moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ñaanaloon kon loolu mooy wane ne mbir na ak ñaan la waaye doonul woon tawassul boo xam ne dafa xam ci jëmm loolu doon na loo xam ne bëggoon nañu ko leeral ci xadis boobu ngir importance boo xam ne am na ko ndax ñu bëree bëri dañ koy jàppee am lënt moo xam ne dañ koy tegtalee pour wane ne ñii tawassul di kerkeraane ci daraja wala ci jëmm am nañ fiñ jàpp mooy xadis boobu te xadis bi bu soree la ñuy wax la bokk ñu jotewuñ sax dara kon loolu moo tax ñu taxaw ci boobu taxawaay am naa nag tawassul te li ñu tuddee kerkeraamu lan mooy ci nekk mashru ak lan mooy ay sartam def naa ne loolu waxtu gudd la loo xam ne xawees na ko war a mën a def ak jotaay toogaay pour mën a tontu lënt yi nga xam ne yëpp moo ci moo ci ñëw waaye rek ci gàttal li sharia daganal ci tawassul tawassul buñ ko dee wax ci kàllaam ak arab mooy la nit ko jaare def ko moyen ba àgg ci nangam la nit ko jaare def ko moyen ba àgg ci nangam loolu mooy wasilaam soxla ngaa génne am ndox ci ab teen nga jël ab goj ak baag takk ko ci yoor ci biir tànk ndox génne kon goj boobu nga jëfandikoo ak baag bi kooku mooy sa wasila pour mën a àgg ci ndox mi mën koo génne soxla ngaa yéeg ci benn bâtiment nga jël benn échelle teg daal di yéeg ci échelle ba dox dox dox ba àgg ca kaw toog réparé defar la nga defar moo xam électricité la wala lu ma noonu échelle bi nga tegoon di ci yéeg kooku mooy sa wasila foofu mooy ko nga jaare ba àgg ci charia nag dafa am tawasul boo xam ne chari la maanaam moyen boo xam ne jullit bi da ciy jaare charia nangu ko yonent yàlla yépp ay wasila lañ boroom xam-xam yépp ay wasila lañ wasila lañu ci lan ci xamal nit ñi diine ji maanaam la jóge ci sunu borom tabaraka wa taala ci diine ak xam-xam ak ni ñuy jaamoo yàlla ak la yàlla bëgg ak la yàlla bañ yonent yi jot li ko borom xam-xami xeet wi borom xam-xami xeet wi di ko jot li ñu jàngul ci xeet wi jële googu yi ñu koy jële ca kaw di ko andi ci suuf di ko jot li seen morom yi loolu tawassul la maanaam wasila la moyen la kon yonent yi moyen lañ ci jële ci yàlla indi ci nit ñi borom xam-xam yi itam moyen lañ ci jële ci yonente yi jottali ko ñeneen nit ñi amul xam-xam kon loolu moo tax leen ci borom xam-xam yi dañuy wax ne tawassul bi sharia nangu mooy boo xam ne da ngay jële ca kaw di wàcce ci suuf waaye nag tawassul boo xam ne da ngay jële ci suuf di yóbbu ca kaw boobu moom du dagan jële ci suuf yóbbu ca kaw mooy lan moom ñu fi muy faral di feeñu mooy ci wàllu ñaan ak lu ko nuru nit ñi ñu ci bari bari dañoo yaakaar ne seen aajo yi ngir borom bi tabaraka wa taala man koo xam faaw nga jaare ci nit la koo xam ne da nga jàpp ne kii ku am ngërëmul yàlla la kooka ngay mel ne danga ku koy yëgal moom mu door ko yëgal boromam loola doo àgg ci moom rek kooku njuumte bu rëy la borom bi tabaraka wa taala ku baax kaa ku baaxul ko ñëpp moo leen gën a jege seen seen xol ya ñëpp moo leen gën a jege fekk inni qarib ujibu daawata daal ida daan su fekkee ne sama jaam yi dañ ma laa laaj fan laa leen toll nee leen ku leen jege laa te ku ma ñaan nag danaa la may maanaam ku ma ñaan danaa la wuyu kon loolu borom bi tabaraka wa taala kooku ujibu daawata daa ida daan kooku lu yaatu la loo xam ne génnewuñ ci kenn iblis sax kenn ku nekk xam na ne ba mu ñaanee boromam ne ko rabbi am dani ila yowm yubasuun damaa bëgg nga bàyyi ma fi yow yàlla ba kero adduna di tukki ba kero nit ñi di dekki borom bi tabaraka wa taala daf ne ko fa innaka min al mundarin may naa la loolu maanaam nekk fi bu fekkee ne nit ki daa jàpp ne salte mooy tax faw mu wut ku laat ku muy jaare ngir mu mën a àgg ci boromam iblis moo gën a salte ñëpp te kër ko daan wut ci kenn jaare wut ci benn mooy boromam la jàkkaar lool ñaan ko te ñaan gi mu ko ñaan moo gën a wéy ci ñaan yëpp mooy bàyyi ko fi mu bañ a faatu borom bi tabaraka wa taala may ko loolu kon ñu xam ne jëmmi kerkeraanu wala mooy bu dee ci wàllu ñaan la moom kenn ku lay yëkkatil sa ñaan di ko jàllale ci yàlla wala koo xam ne soo ko defalul ci diggante bi borom bi di ko dégg lu mel noonu amul jullit war ko fas sax fas-fas bu mel noonu jullit bi war ko fas fas-fasu jàpp ne lii ñu ñaan bala ko boromam dégg faaw mu ne ci dara yi diw wala ci jëmmi diw wala yu mel noonu ñi koy faral di def nag naan ci dara yooyu diw sàngam ak yàlla ñu may ci barkeb diw ak yu mel noonu am na ay lënt yoo xam ne ci la ñu sukkandiku lu ci ëpp ay xadis la yoo xam ne yu wérut la wala mu doon ay xadis yu wér yoo xam ne ñoom lañ ca déggee ak la ca nekk loola bokkul xadis yu wérut yi bokk na ci xadis bi wax ne tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azim dee leen tawassul ci sama daraja ndax sama daraja lu màgg ko yàlla la dëgg la daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu màgg ko yàlla la waaye nag waxut xadis boobu xadis bi wërul borom xam-xam yi xadis yi dañuy wax ne laysa lahu asl maanaam amul cosaan ci téere xadis yi maanaam amutub sanad amutub chaîne amut càllale boo xam ne ca la ñuy jaare ba xam xadis bi wala ak wérul sax faf kon du xadis ay wax la rek kon xadis bu wérut la bu dee ci wàllu càllala xadis bu wérut la itam ci benn xaaj bi ci maanaam yi maanaam duñ caagine xadis bi dañuy wax ne maanaam yëpp wér na déedéet léeg-léeg nga jàng ci téere yi gis borom xam-xam yi wax sax nga xam ne ci ahlu sunna la ñuy bokk ba juum daal di ne xadis boobu maanaam yi wér na ba jëla maanaam yi wér na ci kat li mooy fi mu waxee ne fa inna jaahiya inda allahi azim maanaam daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa sun borom tabaraka wa taala lu màgg la ko yàlla loolu lu wér la waaye nag tawassulu bi jaahi kooku wérut maanaam wérut ci ci teen gi wérut ci itam maanaam yi wérut maanaam yonente bi waxu néewul na ngeen kerkeraanu ci sama daraja bu dee ci wàllu ñaan nag yi ci dagan mooy tawassul ci ñaanu ñaan borom bi tabaraka wa taala ci turam yu sell ya wa lillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha maanaam ñetti xeeti tawassul ñoo dagan bu dee ci wàllu ñaan wax naa ne tawassul bi gën a yaatu moom mooy jëlee ci borom bi tabaraka wa taala jot li nit ñi boobu wasiila moom dagan na bu fekkee la ngay jot li lu wér la yow borom xam-xam bi yonente yi moom lu wér rek lañ mën a jot li waaye bu dee tawassul bi nit ñi gën di jaxasee nag mooy loo xam ne dañ koy yëkkati mu jëm ci seen borom tabaraka wa taala ñu defee ne du àgg li fi tuddaale wuñ ci diw loolu ma ne ñett ñoo ci dagan ci loo xam ne da nga cay kerkeraanu ngir sa ngir gën a yomb la ci jëkk moo di tawassul ci turi borom bi tabaraka wa taala ak ci melokaanam borom bi ne walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha yàlla mooy borom tur yi rafet yi ñaan leen ko ci turam yooyu kon booy ñaan mën ngaa wax ne yaa razaqu urzuqni yow mi nga xam ne yaa yore wërsëg yaa koy joxe yàlla na nga ma wërsëgal kon noonu lañ koy ñaane ci turam yi beneen bi mooy tawassul ci jëf joo xam ne yow yaa ko jëf ci jëf ju baax joo xam ne wóor na leen lii bi nga koy def lu sell la loo xam ne yàlla kese moo tax ma def ko ma jekki ba soxla ñaan borom bi tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan nangam su fekkee ne sama jëf gi ma defoon si jëf gi rek moo tax maa ngi lay ñaan nangam ak nangam ak nangam moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu bari ci ñu daan ñaan fi kanamam da leen di orienté digal leen ñu def ak jaamu yàlla ba noppi door a ñaan kon kooku xeetu tawassul la léeg-léeg mu digal ko mu jàpp julli ñaari rakka ñaan comme ni nga ko gisee ci duwaaw listixaara maanaam listixaara boo koy def da ngay julli da ngay jàpp jàpp moo xam ne bokkul ak njàppum farata boo noppee julli ñaari rakka boo noppee daay def ñaan fil ma xasata ñëwoon itam di ko ñaanloo pour bëgg a gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko digal mu julli ñaari rakka door koo sax ñaan gam ko sax mu door koo def mu door ko sotti kon sa jëf ji nga xam ne yaa ko jëf moom kooku des na ci tawassul xadis bi ci gën a siiw mooy xadis bi nekk saxiihul Buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ko mu doonoon loo xam ne si banu Israel ñu jiitu ni ca la amee woon muy ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudde asxaabul gaar ña doon dox ba xunti ma dëpp ci seen kaw kenn ku nekk ñaan boroomam ci jëf ju baax joo xam ne defoon na ko kii ñaan yàlla ci matal kóllëre goo xam ne mataloon na ko kóllëre digganteeg mag ak surgaam keneen ki ñaan yàlla ci rafetal goo xam ne rafetaloon na ko jëme ko ci ñaari waajuram keneen ki ñaan yàlla ci sàmm goo xam ne sàmm woon na ko ba sàmm boppam tàdduwut ci njaaloo te mënoon caa tàbbi kon borom bi tabaraka wa taala ubbil leen xunti ma ci kaw tawassul boobu ñu def seen jëf beneen bi ci des mooy tawassul nag ci ñaanu nit ku baax ne ko daal ñaanal ma mu ñaanal la loolu lu baax la moo tax yonente bi Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu biñ demee ba def koor parce que yonente bi alayhi salaatu wasalaam génn na àdduna dafa daal di wax Abbas ibnu Abdul Mutalib ne ko man kat dañ daan tawassul ci yonente bi maanaam ci ñaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam buñ ko gisatul nag ah kon yow yaay bàyyi sa xam kon noo ngi tawassul ci sa ñaan daal di koy woo mu jiitu daal di jiite mbooloo ma ci julli ga bi noppee itam daal di ñaan te kenn ku nekk xam na ne amirul muminin mooy imaam mooy julli julli yëpp kon soo ko omar jiite jiital mu julli salaatul istisqa ga kooku mooy ñaan nga maanaam moo xam rot na ci làmmiñu omar mu ne ko ñaanal wala mu ne ko bul ñaan moo xam ne la ko ñaanal wala def na ko rek moo ngi tawasul si yow waaye la abbas def mooy fii wax ji mooy ñaan la def dafa julli salaatul istisqa ba mu noppee xob ba mu noppee ñaan Muawiya ibn Abi Sufyan noonu la jëflante woon ak Yasid ibn al Aswad al Jurashi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi dafa nekkoon nit koo xam ne jaamukatu yàlla la ba ñëpp xam ko donte sax du woon ab saxaaba yi ci taabi'oon yi la bokkoon waaye bi bekkoor amee Muawiya ibn Abi Sufyan ci te palaasu jullikaay ba moom sax julli na ba noppi waaye dafa daal di woote ne ana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi ñu ne ko mu nga nële de ci katul sàtte sa mu daal di jóg mu ne ko jàll sa fii mu daal di jéeg gi ñëw taxaw ci kanam mu ne ko odoo yaa Yazid muy ñaan nit ñi di wax amiin borom bi tabaraka wa taala tawal leen kon ñaan lu ci ñaanu nit ku baax mu defal la ñaan kooku des na ci tawasul ngir am la nga bëgg foofu nit ñi def fi ay lënt yoo xam ne day waar la mooy jàpp ne tawasul bi moom ci jëmmi nit ki la maanaam ci jëmmi nit ki la boo ne borom bi tabaraka wa taala maa ngi kaay ñu tawasul ci diw sàngam day mel ne kon ñaan nga taxu koo jóg waaye jëmm jële ñu tawasule su fekkoon ne loolu la kon nit Omar ibnu Xataab radiallahu taala anhu du fa bàyyi yonente bi di ñëw ci Abbas ndax jëmm yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi fi maanaam jëmm ji ci boppam donte faatu na teewul jëmmam moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam faatu na teewul bu fekkee jëmm ji la ñuy tawassul kay ba tey mën nañ caa tawassul waaye nag xam nañ ne ci ak ñaanam la ñuy tawassul te ginnaaw faatu na bañ denc ko mënatu la ñaan kon loolu moo tax Abbas mën koo wut ci wet boobu waaye su fekkoon ne jëmm ji rek te jëmm moom ku ñuy tawassul bu fa toog nekkee bu fa nekkut mën nga ko def ndax jëmm ja moom daraja benn lay doon su boobaa nag bu dagal li mu mujjee mooy xamal xam ne jullit bi su yëkkatee ay loxoom jàkkaarloo boromam di ñaan lépp lu dul yàlla rek dafa war a effacé wu ci kanamam lépp lu dul yàlla dafa war a effacé wu ci kanam waaye yëkkati say loxo sa borom ba noppi sa xel dem ci leneen loo xam ne da nga naan ko yàlla may ma ci darajay diw kooku ak suufeel sa borom la ak ñàkk a xam darajaam la ak ñàkk a xam magaayu sa borom tabaraka wa taala la ci misaal rek walillahi almasalul ala nit ki nga xam ne dafa ñëwoon président de la république jox ko rendez-vous mu ñëw dajeeg moom mu yor projet boo xam ne daf ko ko fas yéene jox yéen waa président yi projet bi mi ngi nii préparé naa ko ba jekk na léegi daal li muy déglu mooy nga jàppale ma rek mbir mi sotti waaye nag ci daraja yi sa ministère bi nga xam ne moo yore nangam ak nangam ak nangam loolu soo àggalee président bi ci boppam ak ñoom ko nekkal danañ ne kii moom dafa dox wala dafa yor président moo tax ñëw di ko ñaan gëna ko naan ko ci ministre su fekkee nit ci boppam nga xam ne kooku bindul ministre bu moomu ko itam te teewul bi nga defee loolu ci kanam ak ñàkki teggin la kon ñëw ba ci sa kanam borom bi nga xam ne def ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daan nga ñëw ba ci kanamam di fàttaliku keneen banaan ko may ma ci daraje sëñ diw wala ci daraje yonent diw wala ci daraje malaaka diw loolu su fekkee ne loolu yaa ngi koy def sa kanam borom kooku ñàkki teggin la ak ñàkk a xam la itam te it mën naa doon gàllankoor sax ñu nangu sa ñaan ndax borom bi tabaraka wa taala bi mu waxee loolu daf ne ida daani ida daani jooju mooy su fekkee man la ñaan fal yastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun maanaam aaya yi boo ko seetantalee dëgg dëgg dëgg da nga gis ne borom bi tabaraka wa taala ay charte la wut ci nangu sa ñaan bi mooy su fekkee jaam ñi ñaan nañ ma xam leen ne ku leen jege la ku leen jege laa ujibu daawata daayi danaa nangu ñaanu ci ma ñaan ida daani su fekkee man la ñaan waaye nag kon su fekkee man la ñaan boole ca keneen kooku sart la yàqu na ba yastajibu lii kooku dafa war a delluwaat sa suluba sa jaamu yàlla yàlla yàlla woo mu jàpp ci alxuraan ak sunna lépp lu rokkul ci alxuraan ak sunna nga won ko gannaaw kooku ci sart yi la bokk wal yuminu bi sa iman dëgër sa pas-pas ba dara ci xeeti bokkaale nekku ci loolu ci la bokk su bopp yooyu saa bu tajee sa boobu nga séntu ñu nangu sa ñaan ah su nit ka laajtee nag nuur ne fas damay xottil sama bopp yoon wu ma neex ma jaarte wala nu ma ko sama sentiment joxe rek suñ nangul ak ñaanam mu xam ne moo ko def te it mbir ma yemut ci ñàkk nangu ak ñaan rek waaye bàkkaar yu réer yi mën na caa jëbbu waliyasu billah
alhamdulilah yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam boroom bi tabaraka wa taala daf ne ko innaka mayitun wa innahum la mayitun summa innakum yowma alqiyamati inda rabbikum taxtasimoon aaya boobu lim ni jàngal moo di yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla daf ne ko yow day da ngay faatu ñii itam da ngeen di faatu bu ëllëgee nag ngeen di daje fa seen borom kon dekki bi foofa la wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala anqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a loolu borom bi tabaraka wa taala wax muhammad nee na nekkul lu dul kenn ci yonent yi day dund di faatu ah ndax su faatoo da ngeen di bàyyi diine ji dem su fekkee ak dundam mooy tax ngeen nekk ci diine kon du ngeen ci nekk ndax day faatu day dem moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy door a génn àdduna ca bis booba mu tiis lool ci saxaaba yi ba am sax ñu àgg ci jàpp ne moom war fa faatu dafay war a nekk ku mel ne Omar ibn Xataab tàngoor wa daf ko jàpp mu jóg yor jaaseem daal di wax ne ku wax ne Muhammad génn na àdduna danaa tàqale sa bopp sa baat ku wax ne faatu na danaa la rey fekk Abu Bakr radiallahu taala anhu nekku fa woon ba mu agsee bi ñu ko yëgalee xabaar ba mu ñëw dikk fekk mbooloo mi ne gorom Omar taxaw ba bi xonq cooy bu yor jaasi ja bi mu agsee aaya boobu la jàng Omar nee na bi ma déggee aaya boobu dafa mel ne xaw ma woon ne loolu am na ci alxuraan dafa mel ne tey la wàcc dafa mel ni tey la wàcc nee na jëlsi ji rote ci loxoom mu door a nangu ne kët kon kooku dem na kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam dem na génn na àdduna pas pasub nag doomu aadama joo xam ne day génn àdduna bañ denc ko ba àggal muy jël siwaat fii fi àdduna di dajeeg aw nit ngir lenn ci ay yitte loolu du pas pas boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon na ko moom dama jàpp ne sax kuy fas ne yonent bi alayhi salaam ndax ñi lay wax ne dañuy gis yonent bi boo xoolee yitte yañ lay wax ne moo ko yëkkati day doy waar lool ci yow yër naa ci téere yi ñooña gis naa ku wax ne dafa woo aw ganam doon aw wàlliyu ñu bokk toog tiim seen taabal di lekk ba mu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di agsi bi mu dikkee daal di coppati ca ngir ma sex daal di dem keneen nettali na ne dafa am jigéen joo xam ne da daan wër dëkk bi rek jaar ci mbedd yi di way nit ñi di ko wër di ko tëggal muy way rek ñu jàppe ko koo xam ne dafa xaw a dese wenn wàll yu ne leen gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma kooku wali wu mag la moom ndaw soosu bu leen ko reetaane ci wali wu mag la da ngi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee loolu daal di dem keneen ne la damaa toog diw jox ma werd ma yar ko di werd ba mu yàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jikk ne ma bàyyil woow jëlal wii daal li may jox weneen noonu lañ koy toppee ay yitte yoo xam ne dañ lay wan ne loolu moo indi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ñoo xam ne dañuy fas ne buñ toogee ci seen géew di zikkar ba mu yàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day ñëw ci géew ba boo ko toppee muy wax yi doy waar ñu ne léegi kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñ tegoon fële sax li ñu tudde dalil ndax ñu bare bari ci nit ñi xëy na alquran ak sunna yu mel noonu boo leen koy firil mën naa diis ci ñoom waaye xelum doomu aadama ak xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan xoole yi xew diggante yonent saxaaba yi gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li jëkk a am ak jooyoo ci kan moo war a toog gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat néewul woon kenn mooy doon xalifa bi sama gannaaw coow tàmbali woon naa am yàlla teel na koo réglé waaye coow loolee naroon a am ba tax am na ci ñoo xam ne yeex nañoo jaayante seeg Abu Bakar lool amuñu sikki sàkka ci ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su feeñoon booba te dencaguñ ko sax su yëkkati woon boppam ne leen eh Abu Bakar kat moo war a toog kon coow du am dem nañ ba jëmmi jamono diggante Abu Bakar ak Faatuma doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu aju ci miraasu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak jooyoo am seen diggante ñoom ñaar ndax Abu Bakar Faatuma nit ñi nee nañ ko sa bàyyi la sa alali bàyyi yaa ko war a doon abu bakar ne déedéet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim bàyyi ci baytul maal la jëm ndax moom ci jëmmi boppam moo wax ne nun mboolem yonente yi kenn du nu doon loon bàyyi rek ci jullit yépp lay dellu diggante boobu mer xew na ci diggante faatuma ak abu bakar ba ni faatuma génne àdduna seen diggante rataxul yonente bi alayhi salaatu wasalaam su del si woon ne ah faatuma man kat maa ne woon nangam ak nangam ak nangam nangam kon boobu diggante di daal di jeex ndax ñoom ñëpp kenn ku ci ne li ngay déglu rek mooy wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga dem ba ci kanam gis diggante saxaaba yi ay juyoo yu am seen diggante ba ay deret tuuru ci yoo xam ne kenn xamul nu mu toll xeex bi am diggante maaraka bi ñuy tudde maarakatul jamal diggante Ali ibn Abi Talib ak ñu jaamaarloo moom te Aïcha bokkoon ci ñoom nga dem ba ci kanam gis xeex diggante Muawiya ibn Abi Sufyan ba tey ak ñu ànd ak Ali ibn Abi Talib ay xeex am na foofu yoo xam ne Ibnu Jarir at-Tabari dafa ne benn bu ci ne li ci tuuru ci ay deret jullit manquewul fanweeri junni doomu aadama trente mille personnes ci ay saxaaba ak ay taabi'oon yoo xam ne faatu nañ ci xeex yooyu te masal yi leen jooyale woon kenn ku ci ne la nga jàpp da ngaa def ne lii moo dëppoo jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral xeex deret yooyu di tuur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du feeñ ñoŋal ko ñëw ne leen eh mbir mi kët du noonu nii la delluwaat ci xabroom jàmm ne bayyi loolu gën sa ñor mu jekki ba mu yàgg mu ñëw naan diw sàngam kaay jël werd wi te bàyyi werd wi nga yoroon kon ñooñu dañoo tuumaal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ne moom ab gis-gisam dafa gàtt wala dafa xeet xeetam wi ba bu seeni deret doon tuuru sax mën naa génn wax ak ñoom te du génn wax ak ñoom day bàyyee bàyyi ba ci mujj gi jamono mu seet aw wàll yi woo xam ne ma nga ca Afrique wala ma nga ca feneen mu génn ñëw di wax ak moom bàyyi nag saxaaba yi seeni deret di tuuru wala mu génn dem ba Égypte naan leen bàyyi leen ndaw si ngeen di reetaan ndax moom wàll yu la delluwaat ci ab xabroom deret ci jullit yi di tuuru du ci wax dara kon ma ne suñ jëloon waxu xel rek yonente bi alayhi salaatu wasalaam sore yoona ak di delsiwaat di wax nit ñi wax ju mel noonu di delsi ci mbir yu ñàkk fulla yooyu te fekk am na yu ëpp yooyu fulla yoo xam ne génnul woon ngir loolu kon su defoon loolu kooku xikma daf koy manqué te yonente bi alayhi salaatu wasalaam xakim la tey ku yërëm xeet wi la borom bi tabaraka wa taala dafa xam ne bil muminina raufur rahim ku am yërmaande la ci xeetam bi su fekkee yërmaandeem foofu la toll nag kon su fekkee borom bi may na ko saa bu bëggee génn day génn dajeeg nit ñi kon ma ne jiwoo yooyu amoon ba ay deret di ci tuuru kon ca loola la doon génne ne leen bàyyi leen li ngeen di def ndax mbir mi nangam ak nangam la bu noppee delluwaat ci problème waaye loolu amul kon mbir mi da di rek ñii woote yu mel noonu du génn ñaari mbir benn mu nekk koo xam ne seytaanee ko gañe di ko nax di ko jommal muy gis dara defe ne dara la gis te fekk la mu gis du dara wala mu doon koo xam ne sax gisul dara sax dafa bëgg a réeral nit ñi nekk dëjjaal ñeme yàlla génn di jaxase seeni xel di leen wax yonent bi nee na ma lii nee na ma la ndax kat yëgal yaar loolu suñ ko dagan lu woon ubbi bunt boobu charia ci boppam moom dana màbb ku ñeme yàlla ku nekk mën ngaa dugg ci sa broq bu subaa boo xëyee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nañ bàyyi nangam nañ def nangam bis bu ne ñu dolli dara ci charia bi te kan mooy àtte bañ naan jiw sàngam ak gisam wérut ak diw sangam ak gisam wér na ku ne gis naa ko ne kenn mënu ci dara kon buntal boobu boo xam ne du ubbi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn du ko gis yaqzatan maanaam mu yow nga yow nelawoo jaamaarloog moom mu ñëw di toog di wax ak yow kooku moom jeex na ci saxaaba yi la wala jeexe woon loola mooy ngëneel li leen borom bi tabaraka wa taala mayoon te mayu ko keneen seen gannaaw loolu la saxaaba yu gañee ñeneen ñu dul ñoom dund ak yonente bi gis ko ànd ak moom mu di leen digal di leen tere ñu dul ñooñu nag gannaaw bi dañuy topp rek jéego yi ñooñu fexe ba la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon leen jàngal ñu jéem koo xam lu mu leen doon tere ñu jéem koo bàyyi lu mu leen doon digal ñu jéem koo jëf kon loolu moo fi def ci gannaaw bi ah ak di leen jéem a roy suñ kem kàttan waaye di toog nag naan ñëw na nee na ma lii kooku moom jeex na tàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér yi ci Buxaari mu ne képp koo xam ne gént nga gis ma képp koo xam ne gént nga gis ma man nga gis maanaam ka nga gis mana ndax seytaane munta jël sama melokaan seytaane munta jël sama melokaan la shakk ne ci am martaba di gént di gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca melokaanam yu tedd ya kooku am na ak sell bu nekk ci moom war naa gën a góorgóorlu bu baax a baax ci diine war naa am ab soññ waaye nag du ñëpp a koy gént di ko gis wa alayhi salaatu wasalaam te it kan mooy gént gis ko li nga dugal ci laaj bi lu am solo la mooy kan mooy xam ne kii mu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetloo xadis bi daf ne fa inna cheytaana la yatamassalu bii cheytaane du jël sama melokaan waaye waxul ne cheytaane du fenn man ngaa gis leneen mu ne la maa ngi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo yàkkamte rek yow daal di ne gént naa gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne lu tax nga ne damaa gis ak góor ma laaj ñu ne ma kee yonente bi déedéet du noonu faw yow miy gént faw nga xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo doon ay melokaanam faw nga xool ki nga gis lan nga gis ci moom itam ak lan nga dégg ci moom su fekkee wax naa ak yow su fekkee ne xam nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam la doonoon ay melokaanam ci wàllu hadiyoom muy ci la muy sol ak melokaanam ak samtam nañ koy tudde ak ci wàllu moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam jëmmi melokaanam ba ko borom bi tabaraka wa taala binde ci wàllu taar ñaareel bi nga déglu ay waxam dégg mu dëppoog la mu daan wax su boobaa gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag loolu lu ca fell rek keneen nga gis toog nga ba mu yàgg nga gis ak góor goo xam ne dafa taxaw kaalaw doon ab naar yor kurusam nga ne kii ku mu ci biir gént gi ñu ne la kii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo yeewoo bu dee dégg nga dara ci fiq neel kookat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonente bi amul woon kurus am na lu ca dolli ko loo xam ne bokku ca kon keneen la gis nga koo xam ne dafa sol yéreem yu rafet yorul sax kurus waaye mbubb ma gudd na bay wattu ca suuf nga ne kii ku mu ñu ne kii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo yeewoo te am fiq neel déedéet du moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam yéreem daawul wàcc si ba muur ñaari dojoram gént nga ko gis ci melokaan yu rafet rafet yoo xam ne gisoo ci wenn wujjooyoo sax ak sharia ci nim mel waaye nee na la jëlal nangam ji boole ko ci diine ji soo yeewoo xamal ne keneen nga gis waaye gisoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi du màbb diineem yàlla nee na ko woon al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina yàlla nee na ko woon diine ji mat na dara duut ci dolli ko mukk ba faaw kon soo gisee kuy ñëw di la dolli dara naan la jëlal wérdu yi wala jëlal nangam bi wala boo xëyee neel nit ñi nañ sarxe ganaar wala nañ sarxe tàndar wala nañ def nii nangam xamal ne keneen nga gis waaye gisoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon faaw nga xool jëmm ji nga gis ndax jëmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yor ak itam ndax wax ji nga dégg mu di ko wax ndax dara luy soppi dara ci diine ji wala muy indi benn bidaa ngi ci yooyu yëpp su ci dara amut nag te ka nga gis yor na melokaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku santal yàlla te gën a góorgóorlu bu baax a baax ci sa diine wallahu alam bokkul ci charti mbaax bokkul ci charti mbaax ñu ne la condition la ne ngir nga baax faaw nga gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci génn déedéet loolu lenn la rek ci wane ne nit ki ñu ngi góorgóorlu ci siraatul mustaqim la gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax lu baax a baax la nag waaye nag du tax bi man la ne ah yow kat yaa gën képp ku ko géntul gis déedéet loolu mënuñu la ko wax am naa am na koo xam ne moo la gën fuuf te géntul gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bul waru ci loolu bu la seytaane man ci kaw loolu loo xam